aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salli wa salim wa barik ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman wax di siraat mustaqima kulli wajal kasin la seef naa xulli asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yi rawatina mbokki tali bi ñuy teewlu seen télé bii di Xasaayid TV la première chaîne thématique sur les xasaayid de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul santaat nañ suñu borom subhaanahu di ñaan tey siyaara saa su nekk xalifa Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak di ko ñaanal Serigne Cheikh Fall jëm xalifa maam Cheikh Ibra noonee la ñu ko ñaanal njabootu Serigne Touba ak Cheikh Fall gépp mboolem kilifi diine yi ak mboolem kilifa aada yi mbokki taalibe bi ñuy teewlu amaan nañ mbégte ak toofe di janoog yéen seen spécial entretien bi nga xamante ne tey ñu fasin fas yéene dalal Serigne Ndiaga Guèye mi nga xamante ne moom mooy manager général télévision bii di Xasaay TV. ndax xam nga ne xasaay TV dafa nekk benn tele boo xamante ne gisoon ngeen ko suñu borom dogal nekkoon si ay yeesal ñu am foo xamante ne dañ fa bëgg dem fas yéene tàmbal liggéey bi moo tax ñu dalal ki nga xam moom mooy jëriñ liggéey bi di Serigne Ndiaga Gueye Serigne Ndiaga ñu bàyyi la nga nekk mbokk taalibe yi teewlu si xasaay TV. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Touba sëñ Mouhamed maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di ziar bu baax a baax. sëriñ tax Mbacké Bachir moom mi nga xamante ni moo fi tey sëriñ Touba di ñaan suñu borom defal ko fanu gudd ak wér gu yaram ba lépp li nga xamante nii naal na ko si yoonu sëriñ Touba bi mu yeggale ko te ànd ko mbokk taalibe yëpp ci bàkk sëriñ Touba. di jaar bu baax baax ki nga xamante ni mooy xalif général des Baye Fall euh, di ko ñaanal tamit mu yàgg fi loolu tànd ak wér ak njabootu Cheikh Ibrahima yëpp mbokk taalibe yëpp di nuyu tamit euh, ñi nga xamante ni ñooy. Euh, membre daara ji ak sympathisant yi di si jiital jëwrin sëñ Mbacke Thioune nga xam ne moo jiitee liggéey bi di nuyu tamit fépp foo xamante ni jëwriñ ñi nga fa si yi mu mel ne bu ñu fi bu ñu si tuddee sëriñ Dame Diop nga xam ne mooy jëwriñu daara Dakar tudd si sëriñ Matar Thiam xam ne mooy jëwriñu daara Touba daanaka euh, nuyu nañu ñëpp tudd nañu ñëpp sëñ Mouhamed. sa Ndiaga mu mel ne Xasaay TV di télé bi nga xam daanaka suñu borom daa dogaloon euh, jamono yi la lu toll ak ñeenti at si ginnaaw daan nañ gis mu émettre ñu dem ba si digg bi yëf yi taxaw kon laataa ñu ak soo dañu bëgg a xam ne Qaça'id TV euh, kañ la sos woon ak tamit ba ngeen ko doon sos ban initiative ngeen si amoon ak ñan ñoo ko taxawal. jërëjëf si Mouhamed mu mel ne laaj bi am na solo ndaxte euh, bu ñu bëggee tontu si laaj bi dama naan jafe na waaye jafewul jafe na parce que bu ñu xoolee liggéey bi ni mu demee xam ne euh, loxo Serigne Touba moo si nekk. mu doon kon xañ ne baatin boo xam ne daanaka mënu suñu koo liggéey mënu mënuñu ko leeral waaye li nga xamante ni war nañ ko si mën ko see wax si li nga xamante ni euh, gis nañu ko mooy daara ji ba ñu demee ba ay côté 2009 jëm 2010 ba 2012 dafa am benn liggéey boo xamante ni de manière globale dañ ko sumboon si daara ji parce que dañoo demoon ba un certain moment ñu ne woon naka la ñuy mën a defee stratégie xool de manière globale naka la mën a amee beneen réorganisation au niveau de la daara si noonu ba ñu demee ba ay jamono euh, si njiitalu jëwriñ yi ñu ne loolu pour mu Euh, antu nañu mettre en place benn comité boo xamante ni comité scientifique développement et ingénierie lañ ko tuddoon mu doon comité boo xamante ni day xool fépp foo xam ne bànqaas la ci daara ji ñu xool yeen innovation lañ ci apporté si noonu boo xoolee wàllu patrimoine daara ji am na liggéey boo xam ne def nañ ko ci comité bi proposé woon ko boo xoolee wàllu organisation de manière général am na loo xam ne def nañ ko ci boo xoolee tamit lu ci wàllu administration daara ji ba ci wàllu conservatoire am loo xamante tamit lu bëri boo yoo xam ne nii ay soppeeku loo xam ne ni yenn yi eh, mettre nañ ko en œuvre yenn yi peut être ñi ngi ci noonu ba ñëwee ba secteur bi nga xamante nii wala wàllu audiovisuel la ñu ne léegi ban taxawaay wala ban yeesal lañ ci mën a apporter ci noonu ñu seetlu ne xañ na euh, jamono dox na dox boo xam ne ni technologie dox foo arrivé foo xamante ni ñu ne li nga xamante ne doon nañ ko def si wàllu xasida yi naka lañ ko mën a adapté par rapport ak bu bees boobu ci ak jawriñ yi ñu léegi est-ce que duñ mën a def benn web TV boo xamante ni xam ne lépp loo xamante ni xasida Serigne Touba la de manière globale mën a am benn canal de diffusion boo xamante ni ne loolu mooy li nga xamante ni mooy fa euh, fa la fa la fa projet Xasaay TV bi jógee. Mm, jërëjëf comme bu ñu déggee bu baax day mel ni euh, Xasaay TV benn taxaw ko taxawlu ko mbooloo moo ko taxawal mais mbooloo is Daaru Xudus. waaye ba tey rek ñu gis Xasaay TV euh, ndax xam nañ télé murid yu bëri ku nekk da nga am sa tour bu spécial. wana Xasaayid TV day mel ni ñu ngi koy soog gis si si si si yoonu murit ak tamit slogan bi di la chaîne thématique des xas euh, sur les xasaayid ñu bëggoon xam loolu xalaat boobu ndax si mbooloo boobu la jóge ba léegi wala si comité boobu. Xasaayid TV ndaxte boo boo boo déggee ñu ne Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos daanaka li ñu leen xamee mooy njàngum xasida yi daanaka mooy li nga xam ne ni ba ba ñu sasee daara ji ba léegi ci la ñu nekk te boo xoolee loolu tamit continuité la. ci par rapport ak loolu nga xamante ni naka jeeg si lañ doon nekkoon si daara ji moo tax bañ demee ba am initiative web TV bi effectivement comme ni nga ko ni nga ko waxee eh, xamante ni mettre nañ dañ ci doon waxtaan ñu léegi web ko buñ ko indee ban tur lañ a jox tur bu nekk xalaatoon nañ ko di ko xalaat des fois aussi même en dehors daara ji danañ ay borom xam-xam yoo xamante ni doon nañ doon laaj ay conseils yooyu waaye daal bañ demee ba xalaat xalaat ba def recoupement yëpp ñu ne xañ ne turu xasaayit xasaayit moom mooy gën a adapté parce que li ñu si bëgg mooy tamit am benn vitrine boo xamante ni euh, da fay man di jàllale li nga xamante ni ñàngalam Serigne Touba yi la te mu jëm si xasida yi nga xam ne boobaa euh, lépp loo jël thème boo jël moo xam si wàllu société la moo xam si wàllu actualité la lépp loo jël comme thème boo jeexee si euh, xasida Serigne Touba yi xam ne di nga am foo xam ne sëñ bi mu ngi ko fay wax. ba pare aussi benn kii bi nga xamante ni si moom lañ si benn objectif bi nga xam ne moom lañ si a am mooy par rapport mi sax surtout. ñàngam xam ñàngam rajas bi la wala raj ñàngam ñàngam kuréel yi wala durus yeeg bi soo xasee yooyu nga xam daal

climatique mooy que ne boo xoolee euh, jamono dafa dox boo xoolee bu njëkk contrainte yi nga xamante ni daan nañ ko am pour mettre en place une chaîne télévision dafa dafa dafa metti woon pratiquement boo xoolee ak faisceau euh, bande hertzien bi c'était tellement limité ku nekk mënoon a am possibilité am télévision sinon pour nga am télévision ay démarches la wala peut-être di nga débloquer ay moyens yu bare bare bare pour mën ko am mais ba ñu xoolee en certain moment technologie bi maanaam indil nañu facilité yoo xamante ni peut-être mën nañu am télévision te duto laaj yenn moyens yu lourd yi nga xam ni bu njëkk daanaka am. te boo taxee moo tax ñu ne léegi nañ jël benn télévision def ko télévision boo xam ne du télévision générale nga xam ne day doon télévision xam ne nii dina laal ay wàllu yu bëree bëri mais ñu nañ ko jël benn télévision boo xam ne thématique xam nañ télé euh, production moo koy ak matériel euh, début bi ko mettre en place est-ce que euh, contrainte yi est-ce que xawoon na leen sonal wala jotu leen sonal. waaw c'est vrai que aussi au début parce que bu ñu defee tuuti historique def naa phase test bi ñu ngi ko lancé woon si Magal Kazu Rajab 2015 su ma juumul jamonoy si Sidi Mokhtar Mbacké ba mu joxoon si diggal pour ñu lancé phase test bi bañ ko lancé aussi tàmbali woon nañu. doon enregistré ay jàngkat ay rajaskat ak doon dem si programme yi di jël euh, production au niveau des programmes di ko diffuser mais ba ñu demee ba taxaw seetluwaat dañu ah ñu ko li ñu bëgg a def xañ na ni ñu yaakaar woon ne noonu la noonu la noonu la oyofee e noonu ndaxte booba euh, ñu ngi woon fële fi ñuy waxee 4C mooy centre commercial bi nekk euh, booru Malick Sy foofu la ñu nekkoon doon def ay production mais li ma la wax léegi par rapport projet yi nga xamante ni daara sumboon nañ ko mooy par si secteur par secteur bañ demee ba bañ duggee si wàllu patrimoine daara ji nga xam ne mooy tout ce qui est patrimoine moo xam mobilier la wala immobilier matériel immatériel ñu ne léegi nañu xool ban doxalin lañ si mën a am ci noonu ñu amoon benn projet boo xamante ni c'était pour mën a construire daara yi mooy daara cellule Dakar si tàmbali woon am na daara Touba ak yeneen cellules yi si kii noonu si biir projet boobu. ñu ne léegi comme fa ñu nekkoon daanaka charge yi dafa xawoon euh, euh, métti parce que location fa dafa xawoon métti. Ah, voilà dafa xaw a par rapport ak surtout local bi ñu yoroon. ñu ne léegi puisque suñu borom dafa nañu tawféex ba am na barab boo xam ne ñu ngi koy waajal boo xam ne nii day mooy mooy chaise culturelle daara ji centre culturel ji ñu ne léegi est-ce que benn kii boo xamante nii dañu am benn local boo xam ne nii bu paree dañ koy dijji Xasaay TV fii nga xam boobaa au moins li nga xam ne charge la par rapport ak loca location barab bi daf ñu daal di wàcc si noonu ci lañ dafa mettre en stand by sax daanaka boo xoolee activité Xasaay TV daal di concentré wu nag si liggéeyu liggéeyu liggéeyu centre culturel bi moo waraloon daanaka daanaka liggéey bi ci ñaari at la toll ba suñu borom defee mu noppi ba yëpp yemb ñu jël nag si lañ jël espace bi nga xamante ne tey fi lañ defee enregistrement bi daanaka léegi wàll bi dañ koy féetale Xasaayid TV daanaka loolu moo waraloon daanaka standby boobu yëpp ñu ñu ñu amoon ko si par rapport ak kii bi. Mhm. mel ne jot ngeen dégg historique bi nga xamante ne sëñ Ndiaga di manager général Xasaayid TV bi nga xamante ne daanaka euh, moom la yaatal ni ngir ngeen xam ko ndax Qaça'id TV xam ngeen ni comme ni mu ko waxee rek ñu ngi ko tàmbaloon en 2015 waaye suñu boobam dogal bëggoon yeesalaat liggéey bi moo taxaw euh, moo taxaw ñu taxaw defoon benn taxaw seetlu pour mën a yeesal barab yi pour mu mën a mucc ay waaye xam naa di leen fàttaleeg ci biir émission bi incha allah dina am reportage boo xam dina leen ko tegal si ay seere yi nga xamante ne ay kilifa si yoon bi ay jëwriñ ay jàngkat def nañ ko euh, jëmale si Qaça'id TV waaye seen njëkk dañuy des si wàllu rupture bi ba suñu boobam dogal ngeen def rupture bi Euh, ban ban ban est-ce que amoon ngeen ay genre commentaire si si si si yoon bi ndax am na loo xam jotoon ngeen ko tàmmal mbokk taalibe yi mooy kuréel euh, xasaayit yi par maggal par gammak animation. moom daanaka bëri woon na si lool lool ndaxte effet ba ma ni ma ko waxee en 2015 ba ngi lancé dawal un mois deux mois vraiment mbokk taalibe ñu bëree bëri bëri dañ ko rafetlu woon. moo tax ba nga demee ba certain moment gis ne xañ na ni mu waroon dynamique dynamique ñu bëri ñu ngi doon woote di di di laajte. man mi sax yàlla def na ba ma voyagé de naa fee dem euh, Milan benn année euh, ak Paris Bruxelles mais mbokk taal yi nga fa doon dajal yëpp liggéey bi de moom daa mel ne dafa xaw a lu ko waral. daanaka loolu sax tax na li gën a soññaat euh, mbooloo mi ba li nga xamante ni nouveau élan bi nga xamante ni ñu ngi ko si jël ñu bokk ko see def. kon dem na Xasaay TV audience am commencé être présent dans la diaspora. effectivement effectivement parce que si dellusiwaat si par rapport si canaux bi ñuy diffuser. pratiquement ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñun ñu gën a am visibilité bi par rapport ak ñi nekk si biir réew mi parce que actuellement dañu nekk euh, comme ni nga waxee web TV boo xam ne nii si bokk internet lay lay lay lay lay daw te boo seetloo wàllu internet pratiquement mbokk taalibe nga xamante ne ñi ngi bitim réew daanaka ñoom ñëpp seen kër yi am nañu internet am nañu bouquet yi facilement ñoom dañ koy mën a seetaan xañ na fii boo xoolee Sénégal internet bi peut au niveau yenn région bi ñu bi ñu mhm. nga koy mën a am. waa li ñuy des ba tey si historique bi ndax. Mhm. Xasaayid TV ku ko déggee xel dërëm si Hizbut Tarqiyyah Khoudous. Mhm. Hizbut Tarqiyyah Khoudous ban implication la am si wala da ko boole si daara ji. effectivement loolu tamit euh, def naa lu am solo la te lu mat a leeral parce que aussi euh, ba ñu jëwriñ ñi ba ñu amee initiative yi ba mettre en place projet bi jëwriñ dañ ñu woo euh, maanaam dénk ñu liggéey bi ba ñu ko dénkee ne li ñuy wax mooy que ne nañ fexe ba mu bañ a nit ñi koy seetaan. muy mbàkku taalibe yee seen parisien yooyu ñu mu bañ a nekk loo xam ne nii euh, lu féetee trop trop si daara ji lay doon. du loo xam ne nii dafa dañ daara ji niveau direction générale dañ ko dañ ko dañ ko téye seen bopp. waaye dañ ñu ko jox euh, ne nañ ko manager waaye tamit euh, libéré ko vraiment fexe ba mbokk taalibe yëpp mën see gis seen bopp mu doon talib Serigne Touba daal maanaam day boo xam du bokk ak daara ji voilà waaye am comité de sage boo xam bokk si télé bi daal voilà nekk loo xam ne télé xam ne nii ligne éditoriale bi dafa xaw a fermé te lépp lu ñu ci euh, wone wala lu ñu ciy génne lu génn Serigne Touba te loolu wàllu média loolu dafa xaw sensible moo tax danga war a def très attention par rapport li ngay génnee continue bi ngay génne li nga ciy wax li nga ne dinañ am peut xam ne dañu xool magu taalibe yi jëwriñ yi nga xamante ñi ngi si yoonu murid xool nu ngi leen di mën a organiser nga xam ne même bu fekkante ne benn yoon la par mois da leen dem regrouper leen nga xam ne genre conseil consultatif lay doon ñu mën a ah liggéey bi ngeen def kat bu ngeen si mënee yokk lii wala ngeen dindi si lii xam ne loolu dina te tamit loolu li koy wund tamit mooy li ñu wax léegi ne mbirum Serigne Touba la dañ ko bokk ak taalibe yëpp bokk ak mag taalibe yëpp bokk ak mbokk taalibe yëpp moo tax ñu ne woon comité boobu dinañ ko mettre en place incha allah. waaw nag xam naa am na point boobu foo ñu développé ko ndax xam nañu web TV IP TV suñu borom dafa dogal du télé buy bu yàndee recette financière ndax yéen xasaay TV ba ngeen ko doon taxawal. soit euh, da ngeen séntu woon ay recette financière wala njàngalem sëñ Tuubaa kese kese ngeen séntu woon ndax gis nañ boo seetee télé murit yi ñoom boo seetee amuñu benn recette dañuy demee ak seen moyen bopp. tout à fait waaw loolu moom tamit daanaka lu lu ñu mën a teg loxo la parce que boo xoolee euh, damaa ko ne télévision murit yi dafa am benn contrainte boo xamante ni daf ci am ci wàllu doxalin euh, te loolu li ko waral mooy boo xoolee télévision dafa bëri ay charge dafa bëri ay charge am na charge personnel ak. yenn charge fixe yoo xam ni moom télévision toujours da koy da koy da koy da koy am te mu mel ne euh, contrainte bi ma wax mooy que ne partenaires yi nga xamante ni ñoo daan faral di jàppale télévision yi ñoom seen audience ak ñun par rapport ligne éditoriale bi ñu am dafa mel ne euh, conseil du. c'est purement religieux quoi. voilà fii c'est purement religieux peut-être euh, te boo xoolee genre structure yooyu ñoom li ñuy gën a focaliser wu mooy. Euh, émission yoo xam ne peut-être day drainer foule moo xam peut-être euh, euh, di nekk ci football baag wala yooyu tey wax dëgg fa la ñun par rapport suñu ligne éditoriale yooyu duñ ko mën a duñ ko mën a def. ba tax na du doon télévision boo xamante ni télévision commercial la de trop trop trop. mais jubluwaay bi ci njëkk bi nga xamante ni moom lañ si sont mooy ñàngale mi ndax boo xoolee boo bu ñu tuddee daara xam ne ñàngale la. moo tax support boo xamante ni même suba bu amee yeneen yoo xamante ni dina ko tamit du gën a cadre boobu mooy bi. nga xam ne di nga mën a am beneen vitrine boo xamante ni mbokk taal bi nga xamante ni peut-être amuñu jot dem ci daara yi di jàng ñoom bu ñu toogee seen ordinateur wala toog seen seen seen kër heure pause seen bureau dinañ mën a am ay continue yoo xamante dinañ si mën a jànge kon mel ne kon jubluwaay bu njëkk bi mooy jàngale bi nga xamante ni moom mu nga ci def te loolu su ma jëlee benn euh, exemple bu ñu doon bu ñu bu ñu mosoon nettali mooy sëñ Saalu si jaar si daara yi dégg naa dafa am ñu ko ñëwoon ne ko seng bi li ngay dépense si daara yi dafa bëree bëree bëri at mu nekk ay milliards yoo xam ne dafa jëm si daara yi dégg naa sëñ bi ne leen de loolu lu muy bëree bëree bëri donte benn ndongo rek moo si mokkal alxuraan daanaka jar na ko te mel na kon investissement lu mel lu toll nii maanaam si euh, wàllum xam-xam dafa am solo bi fexe ba nit ñi gën a xam mbirum Serigne Touba gën a xam kan moo Serigne Touba gën a xam njabootam gi li fi bàyyi tamit nit ñi gën koo maanaam xam di ko di ko saytu maanaam ngir man see jëriñu bu baax a baax. ak ça sëñ Ndiaga sànq da ngeen développé lu am solo loo xamante ni si wàllum connexion ndax xam nañ comme connexion Sénégal c' est un peu dur pour am ko par rapport ak connexion bi nga xam moo si diaspora bi léegi euh, Xasaay TV ñu bëggoon xam ndax euh, chaîne YouTube la. wala IPTV la ak web TV ak tamit ndax mën nga ñu àndil différence euh, ñett yooyu. Euh, daanaka sax par rapport ak taux de pénétration internet quand depuis ay années mi ngi commencé baax a baax au niveau du Sénégal ndax boo xoolee bu ñu jëlee ay années 2000 li ñu amoon en terme nombre d'abonnés internet par rapport à 2019 pratiquement mën nañ ne maanaam ko multiplier ko peut-être une centaine de fois kon mel ne aspect boobu ñu ngi ñu ngi si ñu ngi siy góorgóorlu xam ne peut-être aspect yi au niveau des villages nga xam ne zones les plus reculées peut-être foofu amaguñu connexion internet waaye je pense que ak politique yi nga xamante ni ñi nga xam ne ñoo jiite si wàllu nguur ñu ngi koy ñu ngi koy mettre en œuvre je que dañ dem ba internet am si zone boobu yëpp yëpp yëpp incha allah mais par rapport ak euh, diaspora bi foofu moom daanaka mooy li mu wax léegi canaux yi ñuy diffuser mooy YouTube ak euh, bokki akan bi daanaka boo xoolee bu ñu ne Web TV pratiquement. Euh, tout ce qui est diffusion sur internet ko da koy intégré parce que web TV benn serveur d'abord la à la base benn serveur boo xamante ni moom mooy fa ngay moom da lay jox benn lien xamante ni moom ngay dugal YouTube moom nga dugal sa web website. Mhm. Euh, sa application mobile aussi boo koy créé moom nga fay moom nga fay moom foofu nga koy dugal. Mhm. mais web TV sa njëg est-ce que mook euh, IPTV est-ce que am na différence. daanaka même chose la. Ah, bu ñuy wax daanaka pratiquement même chose tur yee bokkul daal voilà voilà EPTV mooy li ma la wax léegi EPTV derrière boo xoolee à mooy serveur bi nga xam ne nii mu à partir d'une adresse IP fa ngay diffuser say flux léegi web tv bon mooy fili bi ngay jël après def ko sa sa sa sa site web wala sa application mobile nit ñi mën ko seetaan mais pratiquement euh, même concept bi la en fait. ak ça jërëjëf euh, sëñ Ndiaga jërë ngeen jëfati mu mel ne jërë ngeen dégg li nga xamante ni euh, daanaka suñu jëwriñ sëñ Ndiaga yaatal na ko si liggéey bi nga xam moo di liggéeyu Xasa TV waaye laataa ñoo guddal ak dañuy daal di bàyyi régie ñu daal di duggee éléments yi nga xamante ne. jëwriñu yoon mi ñi nga xam ay jàngkat lañ jot nañ si sànni seen kàddu si li nga xam mooy wàccaayu ubbite télé bi di Xasaay TV ah di ci sant yàlla bu baax di ci sant Serigne Touba mi nga xamante ni si moom la ñuy liggéeyal ah loolu moom wax dëgg yàlla du dara lu ak cant goo xamante ni si cant la goo xamante ni si jànkati xasida yi yëpp seenu seenu mbir la ndaxte xasida yi moom la fi sëriñ bi bàyyi ci ab liggéey kon nag ñun dongo yi nga xam ne ñun ñun la suñ borom jagleel ñu koy jàng buñ demee ba am rajo yéen koy jànge ak télé yéen koy jànge ñun ñoo ci war a jiitoo sant sëñ bi ndax loolu euh, jagle jag ak jagle la lépp nag euh, euh, du jàmbaaru kenn lépp ci sëñ sëñ bi la rek sëñ bi ci boppam mooy mooy gën a wane boppam rek xanaa di ñaan suñ borom rek mu suñ borom jëmee ko ci kanam ah, ba fa ngeen ci bëgg egg suñ borom eggale leen ci foo xamante ni si dana kawe seen njortu tey ñaan suñ borom mu gën koo yaatal ban gën fee bari ndaxte sëñ Tuubaa moom ab liggéeyam dafa ne samay mbir ci àdduna lépp lu ngeen ci gis lu mu rëy rëy rëy ba tax ngeen di ko yem lu ko ëpp ma nga ca kanam ba ba ba àddina kon nag lii ab tàmbale la rek ci liggéeyub sëñ Tuubaa ah di ñaan borom mu gën a jëm kanam rek tey liggéeyub sëñ bi yaakaar naa du deltu ginnaaw yaakaar naa gën a jëm kanam rek ñun nag ñu ngi ñaan suñ borom mu mu gën koo yaatal gën ko ba gën koo yaatal awale ko ci yoon wi nga xamante ni si mooy mooy yoon wi nga xam ne moo sob sëriñ bi ndax sëñ bi ab liggéeyam moom moo koy taxawal boppam kon nag yéen yéen a ko tàmbali waaye sëñ bi moo ko yor boppam yàlla na ko sëñ bi eggaleel boppam ci barke sëñ Tuuba def xanaa sant ji sëñ Tuuba bu baax ndax ni ko sëñ Basiir waxee rek day mel ni noonu rek la deme am na loo xam ne moom da nga yëg ni sëñ bi moom mi nga xam ni moo doon bind xasida yi moo am na mu mu tasaaroo ndax njëriñ li ci nekk njëriñal ku ko xam la ak ku xamut ba na lépp loo xam ne jumtukaay la bu ko yaatal rek gëm nañ ni jamono day dox lu lu jamono di gën a dox muy gën a jàppandi ngir muy gën a yaatu. waaye tawféex ji ci defaat mooy ñoñam ñoo ciy gën a xejj te day mel ni Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos seen liggéey ci am njàng ak setantal xasida ak topp ko bu nu defee seen yitte jëpp jëmale ko ci lu mel ni télévision ngir lu yaatal am njàng day mel ni ak cant la ci képp koo xam ni yaa ngi xeeñtu xasida yi wala nga ciy yëngu rawatina ñi day mel ni ñun ñii lañ koy defal ndax liggéey bi nga xam ni dañ koy def fu ne ñu ko fay dem ci ruq-ruqaat fu mën a nekk yéen ak ñu fay topp fuñ ko defee ngeen jël ko wane ko ba àdduna sépp di ko gis loolu amel nañ leen ci gu rëy di ñaan nag sëriñ bi yokku leen lii ngeen di tàmbali sama borom defal leen ci barke ci barkeb xasaayid di ba lépp lu ngeen ci yéene ngeen def ci lu kawe njot ci barke sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi leen doole ziare te di leen sant te di leen gërëm ci teewaay yi ak xalaat bu rafet bi nga xam ne yàlla dogal na ngeen xalaat ko muy wut télé boo xam ne dañ koy jagleel xasida yi loolu nag bu fa ko waa hôpital xeeb bu daal xuddus taxawalee xelu mur yëpp da ci daal ndax seenu doxin yàgg nañ ko rafet te it bu dee nañ doon doxee bu ñu taxawalee ab télé duñ ci soppi dara te jort na it noonu lañ ci doxale ndax xam-xam bi daa jiitu tele bi ndax xasida yi ñu ngi koy sellal xam nañu njàng xam nañ jàngat xasida yi jaxase nañ ak ñoom kon ñoom bu ñu ubbee télé jot na ni dina mel ni murid yi bëgg mu mel ni waaw lépp doon sëriñ bi kese rek dara bañ cee rax tey loolu mooy seenu doxin kon nag jot nañi bu ñu amee télé noonu rek la doxin yu wéyee bu jàng xasida yi ni ko sëriñ bi bindee di ñaan ñu dajee ci tawfiq sëriñ bi ñaan sëñ Tuubaa gàttanu leen ci ñaan lépp luñ ci def ndax ay ndab la rek waaye lépp luñ ci def rek muy ay ñam yu sell yoo xam ne waajal nañ ko ba mën caa dem murit yëpp loolu yittewoo nañ ko te soxla nañ ko ñu ngi ñaan ñu egg te bañ bañ am benn ndog wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Euh, jërëjëf sama sëriñ. Qaça'id TV. kon day nekk loo xamante ne wax dëgg euh, day mel ni ci jamono ji nga xamante ne toll nañ ci euh, mbiri sëñ bi dëgg dëgg dëgg dëgg day nekk loo xamante ne day dox ci wàllu xaside yi loola nag booy xool lu mel ni bisub xaside yi nga xamante ne léegi yaatu na yaatu goo xamante ne mëdd na lépp loo xamante ne nuru woon na wala loo xamante ne nuru woon na caaxaan nga xamante ne léegi ndaw yaa ngi toog jëlee xasida jàng alxuraan toog dellu ci sëñ bi euh, kon day nekk loo xamante ne wax dëgg taw feex la boo xamante ne loola it la nga xamante ne lay dem ba koy mën a jotale euh, ba mu mën a yaatu ba nga xamante ne ab télévision ba nga xamante ne nit ki day toog di xool télévision mu nekk loo xam day yàq jukko ji ngir image nekk loo xam lu ndaw mën naa nekk loo xam day jékki-jékki rek euh, def yàq xolu nit ki kon buñ demee ba nga xamante ne suñu borom taw feexal ñu mu dem ba murid yi di xalaat wala ndongo ta ndongo yi di xalaat loo xam ne ab télévision boo xamante ne ci wàllu xasida lay nekk loolu day nekkaat taw feexub sëñ bi nga xamante ne nit ki mën na toog euh, au lieu na euh, na nga xamante ne nit ki du seetaan télé mu dem ba xelam nekk saa ne di seetaan télé bi di gis xas xelam di xolam xolam di naat xolam di yëngu euh, di dundaat sëñ bi bu baax a baax kon loolee taw feex la goo xamante ne initiative boobu kon ñun dañ koy rafet waaw lu ñuy rafetlu la bu baax a baax a baax a a baax laaj ay ndénkaane wala lan ngeen séntu ci télé bi yen lan ngeen ñuy dénk wala lan ngeen séntu ci télé bi yéen ñi nga xam ne yéen ay euh, yëngu ci xasida yi ah, loola comme euh, li nga xam noonu la war a xasida yi dafa yaatu mhm. ngir day nekk loo xamante ne euh, xam-xam da cay nekk mhm. nga xamante ne murit bi mën na nekk loo xamante ne tey bu ñëwoon lu mel ni tasu sexaan mu koy jàng mhm. kon télé bi nekk loo xamante ne da koy jàngal bu toog mën na jàng à travers télé bi. ginnaaw léegi dem nañ ba nga xamante ne communication bi yegg na foo xamante ne euh, murit bi mm, euh, amatul lay ci mbañ a kon télévision boobu nekk loo xamante ne mën ngaa jël sa tey mu jël ab téere mën a daam am initiative toog di la dara tasu saxaar kon loola day nekk loo xamante ne euh, lu rafet la waaw ngir image dafa nekk loo xamante ne dafa dafa doy waar waaw ngir lu ndaw rek mën na lu ko indil bu ko defee day nekk ci loo xam ne ne sa xol day nekk ci yow kon loola bu ñëwee ba nga xamante ne suñu borom dimbali ñu ba eh, loolu di nekk loo xamante ne ci xasida yi lay nekk lu tawfeex la daal loolu daal wax dëgg moom tawfeex la bu wér Allah jërë ngeen jëf mbokk taalibe yi ginnaaw ba ngeen teewloo élément yu am solo yi nga xamante ne sëñ Bass Niass di jàngkat mi nga xam ràññee ngeen ko lool ak tamit Serigne Ibra yi ak tamit euh, Serigne Moustapha Ñing ak ñeneen ñi sëñ nag day mel ni ñoom ku nekk dafa benn seere boo am da nga ko seere waane bu ànd ak soññ la ndax dégg nañu Ibra Gueye mu ne na doon ñam boo xamante ne na doon ñam bu ñu mën a lekk nga dégg sëñ Moustapha Ñing ne na doon loo xamante ne daa ngi leen accompagner ndax xam nañu euh, télé Mouride ñoom saa su nekk ñoom ñoo leen di feeñal nga dégg Bass Niang tam la même chose ban impression nga am si euh, ñetti euh, soñ yi nga xamante ne jànkat yooyu euh, andi nañ ko si bi. waaw mu mel ne ñoom day dañoo am cër bu am solo cër bu mag a mag sax si li nga xamante ni mooy Xasaay TV ndax boo xoolee bu yemee si tur bi rek. daanaka kooku tudd daanaka sa xel dina dem si ñun ñi nga xam def nañ def nañ fi ay ay ay CD par rapport seen taxawaay ak li nga xam ne toujours jaayante bi nga xam ne ñu ko def dimbale ko si xasida seen tuwaay bu mel ne CD yi am na solo. te am na ay yu ki jàngat yu bëri yoo xam ne ndax ñi élément yëpp ñun dañ koy teeluwaat en interne ci comité de pilotage yi comité technique yi di xool yan jàngat lañ ko ci am si sëñ bas ne na doon ñoom boo xam ne ñëpp nañ ko mën a jëriñu loolu daanaka man sama xel li mu dem rek mooy ku ko bëgg a seetaan mën koo seetaan mu jëm si wàllu support de de yi te actuellement wax dëgg fa par rapport ak euh, support yi ñu am peut-être am na ñoo xam ne ni tey bu ñu ko bëgg a di duñ ko mën a seetaan moo tax ci waa yeneen wàll bi tamit am na yeneen diigo yoo xam ne ñu koy def yeneen démarche pour mën a permettre tamit vraiment ki nga xamante ne amul internet aussi bu amee télévision classique man ko man ko si seetaan kon mel na tamit foofu ñu ngi si démarche yi daanaka sori nañ si di ñaan xanaa mbokk taal bi gën si ne dañu ko def dañ ko bokk def ndax gis nañ suñu yoon télé murit yi dañoo bari benn diversité boo xamante ne euh, benn sant ñoo ñëpp ñoo bokk lu ñuy def ah, loolu moom daanaka dañ koy sant Serigne Touba baax baax te aussi day day dellu si li Sëñ Tuubaa waxoon ne sama sama sama sama sama sama yoon bi tànk kanam la am waaye tam amul tànk gannaaw mu mel ni tey dama jàpp ne jamono lépp loo xamante ni baax na ñëpp di naan lii de lu baax la Sëriñ Tuubaa moo ko war a ëppale ñëpp te boo xoolee wax dëgg fa la web TV yi télévision yi tamit si benn fan wan mën nañu wax ne lu baax la. day mel ni gars yi dañoo dem ba jéewee ñu ne ko murit yi ils plus forts en communication. au parce que tamit boo xoolee njàngale la. télé yi li ñuy bare bare bare bare bare yëpp daanaka ñàngaleem Serigne Touba la ñàngale suñu diine la ban comportement la nga war a am dañu yee daanaka loolu rek la ñuy la ñuy kii la ñuy la ñuy génne kon mel ne man dama ne sax télé lu mu bari sax daanaka doyul parce que am na am na benn bokk taal buy wax mu ne moom bu soñoon ndax dañoo wax na daayira yi dafa commencé woon a bari parce que koñ boo dem di nga fa fekk ñetti daayira mu ne moom bu soñoon kër gu nekk sax day am daayira foo tourné rek yaasal yaasal jalaale yi di jolli mel ne kon lu baax moom du du du doy mukk xañ na peut-être euh, wàllu web TV yi aussi même taxawaay bi la ma ne naa tey télévision Serigne Touba yi lu mu gën a bari rek gën a baax te war nañu ma maanaam am benn bouquet boo xamante nii du am lu dul télévision Serigne Touba yi yoo xam ne dañuy yëngu bokk ci yàllu wàllu wàllu wàllu wàllu islam de manière générale je pense que loolu bu ñu ko defee pratiquement tamit daanaka euh, apport benn apport bu bees lay doon boo xam dañ koy contri benn contribution bees lay doon lay boo xamante ni si wàllu communication de manière générale si l'islam ak de manière générale ak euh, vraiment yoonu murid de manière particulière la mooy seen perspective à l'avenir ndax gis ni comme ça ni ma la wax seen murid yi bari nañu euh, te ñoo bokk li ñuy def comme boo seetee bis xas yi mhm. soo demee ñëpp direct la ñuy def est-ce que yéen fas yéene fas ngeen indi beneen touche boo xamante ne du bokk ak ñoom li ñuy def waaw par rapport ak euh, couverture yi daanaka xañ na sax euh, nit nañ def loo xam ne du bokk du bokk yooyu xañ na dina xaw a jafe parce que daanaka euh, ñëpp ni ñu koy defee vraiment nu nu nu rafet ñu koy ñu koy defee noo xam ne nii vraiment lu mucc ayib nañ koy defee vraiment toujours dañuy dañ leen a suivre. mais des fois seen njëg si baax de. voilà voilà innovation bi dina si baax ba peut-être xañ na wàllu wàllu wàllu programme yi ni ñu koy couvrir am na ay xalaat yoo xam ne am nañ ko si. par exemple boo xoolee am na émission boo xam ne nii euh, ñu ko tuddee bisu xasida nga xam ne moom peut-être objectif am mooy topp bisu xasida yi nga xam ne dina ko fa aménager nga xam ne ñi nga xamante ñoom ñooy organiser bisu xasida ba dinañ la mën a dalal si plateau yi bu ko defee ñoom dinañ mën a wax taarixu Euh, bis bi ak organisation mbooloo mi de manière générale daal ni nga xamante noonu la ñuy organiser bis beeg yooyu ak seen i projet moo xam daara la moo xam fédération la yëpp nga xamante ni dañ am benn plateau boo xam ne dinañ ko mën a leeral boole ko nag ak animation kuréel yi nga xamante ni moom moom fay am. mu mel ni tamit seen grille de programme euh, li ñu jot a seetlu day mel ni bàyyiwu leen benn couche yéen bàyyiwu leen Baye Fall yi bàyyiwu leen daayira yi bàyyiwu leen école management yi bàyyiwu leen école polytechnique bàyyiwu leen kenn. Euh, fépp foo dem taalib Serigne Touba dañ faa nekk. comme ni nga waxee léegi boo demee si école de formation yi boo demee si ministère yi ba si société yi même ba si bitim réew ci tubaab ya boo demee seen société yi da fay fekk ay daara Serigne Touba moo tax aussi puisque ñun aussi suñu cible mooy taalibe Serigne Touba yi ak waa ko Serigne Touba yi fa euh, foofu li ngeen def tamit ñu ñu koo xam fu mu am visibilité kon mel ne looloo waral tamit ba ñuy def euh, réfléchir ci programme yi vraiment aspect yëpp ñu jël ko en est-ce que fas ngeen tamit ànd ak euh, ay partenaires comme wàllu sponsor ndax xam ngeen moom euh, bu weesoo euh, maam li ñuy jaayante seen seen seen seen yëfu bopp. Mhm. Euh, dañuy soxla ay accompagnement est tamit tàllal ngeen loxo yi ñi nga xam ñoo di bailleurs yi. pour le moment peut être amoo ouverture ci aspect boobu parce que li ma la léegi mooy. Mhm. du doon nekkul télé boo xam ne nii télévision commerciale boo xam ne nii day dañuy daw di wuuti ay partenaires parce que. Mhm. Euh, dañ jàpp ne bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko tënkee activité yi ci ay apport extérieur rek ba motu dinañ am surprise. waaw ah, comme bu ñu wax ci tàmbali sëñ bi yem. voilà tàmbali sëñ bi yem si sëñ bi. loolu fekk si rek voilà ak par rapport moyens yi ñu am tamit. ñu jëm ko see def. Mm-hmm. bu ñu demee nag ba jamono dox nga xam ne xañ na peut dina am ñeneen ñoo xam ne peut être dinañ am dinañ commencé intéressé aussi li ñuy def mm-hmm. bu waa peut être dinañ mën en mm-hmm. toute indépendance euh, waxtaan ak ñoom xool nag parce que tamit collaboration jamono moo toll foofu mënoo ne dinaa def dara doo am ay ay ay ay ñoo jamono moo moo toll foofu mais toujours ñun ni ñuy bàyyi xel mooy pour le début vraiment ñu basé aussi moyens yi nga xamante ne moom la ñu am pour mën a voilà euh, mën a activité bi bu ñu demee nag ba si biir xañ na bon Euh, nga may ma rek ma am ñoo xam ne vraiment ma tudd leen parce que vraiment dès le début ñoom xaaruñu sax ñoo ñu ñu laaj leen ay moyens yooyu dañoo dégg ne liggéey bi mi nga am rek ñu ne non ñoom foog a baax a baax si euh, collaboration ko ñoom depuis le dès le début te boobu léegi sax daanaka dañuy soññ yéen déggaatuñu leen déggaatuñu leen mais il fallait que tamit ñu am benn recul tuuti pour mën a xoolaat naka la organiser waatee kii waaye vraiment doon di leen sant baax a baax euh, est-ce que tàll ngeen seen loxo tam ñi nga xam ñoom dañoo am benn expérience wala benn notion si télé comme régisseur cadreur présentateur journaliste. tout à fait waaw loolu tamit. Euh, pour dire que da am nañ ouverture si wàll boobu nekkul loo xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy fermé si daara ji. mais vraiment am nañ ouverture boo xamante ni fépp foo xam ne compétence nga fa wala fépp foo xam ne mbokk taalibe seetaan na li ñuy def te yaakaar ne war naa am loo xamante ni war na si mën a euh, euh, sof war na ko mën a yokk. vraiment bu ñëwee dinañ ko accueillir dinañ ko dalal te dinañ ànd ak moom liggéey bi sëñ Ndiaga est-ce que am nga yeneen lien ak yeneen IPTV TV fas mhm. si biir terrain mouridisme si wàllu bis yi waaw effectivement tamit lu am solo la parce que euh, ndes ñi yàlla dafa def daanaka ñay nekk foofu ñëpp suñu ay wóorlëra lañ ñii suñu ay jóoriñ lañu ñii vraiment suñu ay mbokk taalibe lañu toujours ñuy ñuy ñuy dajee di waxtaan euh, si wàllu wi li jëmale liggéey bi kanam toujours dañ ciy waxtaan mu mel ne li ma la wax léegi nii rek daanaka day ñëwaat si wàllu boobu boobu ndax boo xoolee télévision yooyu yëpp maanaam alalu Serigne Touba lañu te je pense que puisque ñu ñëpp ñoo bokk kenn ki ki ki ñu moom maanaam war nañ maanaam benn cadre n'est-ce pas de collaboration boo xamante ni war nañ ko mën a mettre en place moo xam peut-être bu ñuy am ay rencontres permanentes yoo xamante ni dañ ko organiser ñëw mën a waxtaan sottante xalaat moo xam ay atelier la wala ay séminaire xool liggéey bi naka lañ ko mën a àndee donte ku nekk da ngaa nekk maanaam jàpp si benn ñu xool en commun naka la ñu mën a amee peut-être benn euh, axe de collaboration xam ne nii parce que ma demantee ji nii Bichri war naa mën a soxla caméra almouridia dem jël ab caméra almouridia dem tourné yóbbuwaat. ndax lépp benn la. Touba TV war naa mën a soxla caméra Lamfal TV dem jël ko wala mu ne émission sama émission bi may def tey kat. maa ngi koy dem di defee Bichri TV wala Xasaay TV je pense que loolu daanaka dafa am solo mhm. man keroog maa ngi wax maa ngi wax Sëñ Cheikh Gueye man la ko émission bi njëkk a tourné Bichri TV lañ koy ñëw tourné ko liggéey Serigne Touba la ñu ñoo ko bokk waaw te bi li mu gën a bari rek maanaam patrimoine yoonu murit mooy moo moo moo si gagné. mooy am ndam daal am ndam. Mhm, mhm. parce que nit ñi dèjà boo boo am na xam ne ñi ngi am appréciation bi ah murit di kat ñoom vraiment envahir kii bi ñu ngi communiqué lépp loo xam ne sëñ bi. te loolu mooy njëriñ li mooy njëriñ li voilà tey boo xoolee tey si mu taxaw bu génnoon tey benn déclaration léegi balaa ngoon àdduna si yëpp jot ko parce que lu mat dix wala vingt plateformes yoo xam ne nii dañ koy dañ koy dañ koy mën a euh, jàllale mm-hmm. te loolu je pense que euh, patrimoine da daal boo xam ne nii ñun ñëpp ñoo ko bokk mm-hmm. jërëjëf sëñ Ndiaga mu mel ni waxtu gi ñu jox mat na wan laataa ngaa tàggoo mm-hmm. dañuy bàyyi nga àndoo si mbokk télé bi teelu si Xasaay TV euh, démarrage télé bi Euh, bu ñu noppee nga daal tàggoog mbokk taalibe incha allah. xanaa rek waa di di di la doole sant bu baax a baax sëñ Mouhamed di rafetlu aussi vraiment liggéey bi nga xamante ni yaa ngi koy def wax dëgg fa yàlla yàgg nañ leen a suivre par rapport ak li ngeen di def xanaa peut-être euh, li ñuy wax mbokk taalibe ñu si tan mooy actuellement dañu bëgg dugg si phase active. parce que boo xoolee depuis 2015 ñu ngi woon si phase test en certain moment daanaka amutoon benn émission amutoon benn daanaka ay animation. Euh, rek lañ doon lañ doon lañ doon lañ doon diviser en boucle yàlla def na que euh, depuis janvier janvier ñooy léegi dañuy dugg vraiment ci phase active mooy vraiment commencer euh, émission yi émission yi aussi am nañ peut-être une quinzaine d'émissions yoo xamante ni diversifiées la comme ni nga ko waxee léegi yoo xamante ni vraiment bëgg nañ ko commencer nga xam ne dès mois de février incha allah émissions yi njëkk di ngeen ko mën a mën a mën seetaan pour le mois dina wax rek ne. am nañu euh, benn site internet boo xam ne xasaay tv point com la incha allah balaa fii ak dina ko mettre en ligne am nañu aussi euh, benn application mobile boo xam ne sax moom mi ngi woon mi ngi woon ne déjà si Play Store maa certain moment aussi dañ ko dañ ko dañ ko defaat si Play nga xam ne mbokk taalibe bi dinañ ko mën télécharger gratuitement bu ko defee mën seetaan euh, à seen téléphone portable am na aussi yenn bouquet yi comme bouquet Roku ak suñu mbokk taalibe bi suñu yoo xam ne daanaka wala waa Akan TV nga xam ne daanaka boo demee euh, bitim réew ñu bëri si bouquet yooyu la koy seetaanee euh, si surtout daara ji aussi dinañ ko fa dinañ ko dinañ ko fa diffuser incha allah euh, je pense que daal pour le moment yooyu mooy kii waaye message fort bi nga xam ne daal bëggoon nañ ko lancer mooy démarrage officiel programme yi nga xam ne incha allah balaa yàgg di ngeen di ngeen di ngeen di ngeen ko mën a teewlu bu soobee. incha allah ngeen jëf mbokk taalibe ak Serigne Ndiaye Guèye nga xam moom mooy manager général télévision bii di Xasaay TV mu mel ne jot ngeen dégg li nga xamoon jot na ko développé si wàllu diversité bi euh, diversité médiatique bi nga xamante ne moo am si yoon bi muy suñ télé yu bëri yi di liggéey liggéey bu am solo ak tamit euh, historique bi nga xamante ne moo di Xasaay TV euh, na mu tàmbalee ak rupture bi mu amoon ak liggéey bi ñu fas yéene yeesalaat si au début du mois de février di leen jaajëfal di di jaay incha allah ba fa ñu ñëw jërë ngeen jëf.